طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي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 أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقد عصاها واستقرت بأنها ونلت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله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 عكفت على باب النبي محمد ومن رام دري فهو أجدى وأنفع لمكة بالمصاع بخيف ومشعر ضياء رسول الله للطرف يرمون بغار حراء بالمحصب لا أرى رفيقا سوى الهادي بي أتمتع محمد عبد الله أحمد واقبا بحب الإمام الهاشمي أتشبع عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نذير ماحي الكفر مكي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 فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلامه لقاء كحسب الدير للقلب موجع ويوم كألف من سنين أعده قصيرا فما نفسي بذلك تقلع عليك صلاة الله ثم سلامه على رغم أنفه بالسلام عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع عليك صلاة الله ثم سلامه مدى الدهر دين المصطفى القرم يرفع عليك wax naa di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bakkan bu ñam mës a ñam dund di ñam dee sa euh, axriju anfusakum alyawma naxtimu ala afwaahim wa ay aydihim loolu na ko ko dégg muy sunu wax waxi sunu borom nga war koo gëm muy képp koo xam ni rek mas nga ñam ñam dund rek di nga ñam dee bisu nag tabarkàlla day xale bu baax di nit ku baax ku yàlla baaxal ku bëgg yaayam ku fonk yaayam yaayam ji fi jóge di jigéen joo xam ne jigéen ju baax jigéen ju gore nangoo liggéey am jom lool bari valeur marqué empreinte fii si réew mi si jom ci fulla ci fayda ci personnalité ci ku ko xam ci nangoo liggéey nga ko xam ajaratu nee na gaye doo lim grande daaw yi ci réew mi fa tabarakallah boo limee juróom mi ngi ci biir juróom yi lépp ci personnalité kon moom rafet na lu ci njort moom ci moom bu baax a baax bu dee Bijou Ngoné nag moom lim Modou Mbaye wax léegi rek yaayam bi mu koy gërëm loolu du tey bi yaayam di dem fexe na bisu moom bisu fexe na ba làq ngërëm démb rek bi ñu koy annoncé yaayam bi yaayam wàcc na boobu ñoo ànd fekk ko muy jaamu yàlla fan la nekkoon mu ngi nekkoon euh, kasu bi ci bi ci bi ci bi ci Rufisque kasu jigéen ñi bi ci Rufisque doon année bu jot don yooyu muy yëkkati di leen ko jox di leen ko dimbale mooy journée de la femme def nañ ko camp pénal euh, lu 8 mars bi di ki démb démb di la 9 ñu dem kasu bi ci Rufisque foofu lañ ko ko annoncé biñ ko koy annoncé toog na ak respecté gi mu respecté jigéen ak am maana gi mu ci am maana ak li muy def ak bëgg gi mu ko bëgg la bi ñu paree ci la ñuy door wax léegi lan ma woo ñu ma sa ajatu nee na gay wàcc na kon moom rafet nañu ci njort ci moom bu baax a baax na ci ak njabootam njabootam xoo leen boo leen xoolee xam ne yaral na leen boppam yaral na leen boppam def na ci ñoom jom def ci ñoom fulla ak fayda waaw kon daal ñu ngi leen di sant yéen tamit bu baax a baax ci seen taxawaay jërëjëf waaw dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek euh, ñun ñëpp ci yàlla lañ jóge te ci yàlla la ñuy delloo te waajur moom ku la ko mujj rek mujj la ay rankoñ waaye macha allah bisu bi mu xamee ni waajur da ngay profité ci moom ndax kenn xamul kañ la ak fan la ak naka la euh, te wax dëgg yàlla ñun duñ dégg naa dañoo fekke yaayam moo ñu woolu ba ma ba ñëw mu ni wol leen ma Modou mbay ak Ismaïla Mbaye ñu ni ñu kaa leen wuyu soxna Nene ñu ñëw wuyu ko ñu dugg ci néegam toog mu ni ñu dama leen di wax ni leen biisu maa ko jur waaye gërëm naa ko ñaanal naa ko ñu nu ko ah yaay li nga wax foor na de mu ni waaw man mii maa ko wax te damay ñaan yàlla te bi mu koy wax mi ngi yor kaamilu alquran ci loxoom mu ne damay ñaan yàlla suñu borom man mii di soxna Ndéné lépp lu ma suñu borom nara defal ci lu baax ak gudd fan ak lu mu mënti doon yàlla na ko yàlla xëpp ci biisu sama doom ji. ma ne ko li nga wax yaay rëy na lool mu ne man maa ko wax ndax biisu yërmande gi mu am ci man bëgg gi ma bëgg fonk gi ma fonk bëgg yaayam ma waral bi yaayam feebaree ba feebar mu jël ko yóbbu ko këram daal di koy wàcceel chambre à coucher bu bees tàq defaral ko néeg bi ba mel ni néeg bu ku gan gu bees guy doo ko ñëw loolu ci fonk waajur la bokk kon ñu ngi koy ñaanal waajuram yi fi jóge yàlla na ko dëddoo jàmm yàlla may ko gudd fan may ko wér moom biisu yàlla kartanal ko ñaan gi ko waajuram ñaanalal yàlla na ko dal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay magam ak ay rakkam ak ñëpp di gërëm yow tamit macha allah yow nit ku baax nga site bi site la boo xam ni àdduna bépp koy seetaan àdduna bépp koy suivre ndax lan sa yar sa teggin sa bëgg li ngay def ba pare teg ko ci teg ko fi nga ko war a teg waaw laaj booy laaj da nga koy laaj fa mu waree ak milieu ba ak place ba Dakar live daal yàlla na yàlla guddal sa fan yow nga mu doon ay ay ay chaînes yu bëree baree bari ci barke Seydina naa ma alayhi wa sallam kontaan nañ jërëjëf